wàcce su ko alquran waxutoon kuy sikk mën na ci sikk ci ay malaaka nu muy xeexee waaye jibril ma nga yore woon wenn fas wu tudd xay zoom ñi ko gisul it dañuy dégg léeg-léeg am na kaddu gën a uqdumi yaa xay zoom ñu xam ne kon am na ñeneen ñu nekkoon ci biir xare bi buur ne balaa kay in tasbiru su ngeen mu ñoon dey wattattaqu ngeen ragal yàlla wayaatukum dikkal leen min fawrikum seen ak gaaw haasa mu ngi nii yum ditkum dolli na leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin juróomi njunni min al malaika musawimin ñu xamal xare wa maa jaalahu llahu defut ko yàlla illaa bushra lu may ngir bégal leen rek lakkum ñaan leen wali tatmainna ak dal qulubukum seeni xol bii ci malaaka yi waaye wama nasru deen ndimbal illa min indillahi lu may bàyyi ko ci yàlla al aziz ku daaji not ci kattan al xakimu ku daaji xara la lu tax xare badar buur li yaqataa ngir mu dagg tarafan ab kuré tarafan ak wàll min allazina ci ñi nga xam ne kafaru am na benn kuré xam ne war nañu fa des ndax kéefir gi wàññeeku aw yàq bi taxum ñen nañu mu tiital leen ba ñu wedem ba noppi mu alag leen fayoon xaliboo ñu mujj xaa i bine di way perte yent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu demee bañam xaañ ko cib jë dagg oom bi ba ko ci kàmba gi mu daanu ba pënd wuree ba ñu ko yëkkatee nag léegi Fatimata ñëw ñëwoon na bokkoon na ca xare ba doon may ndox ñi nga xam ne ñoo daanu Fatimata di sotti di raxas jam-jamu yonent bi ñu di ko faj yonent baa ngi naan kayfa yaflahu qawmun faalu haza bi nabiyihim gis nga loolu ñu naan boo tooñee diw mu alag la waaw ñoo ñuy alagaate ñi ko ci man xam naa ab yónintaa koy dàq bu fekkoon am na koy mën a alagaate gis nga yónent bi tëkku na gaañ ne na ñi day alku nañ xaw ma wiixeet nu ñuy texeeti nu ñuy demate aljanna ñoom ñi def seen yónente nii yàlla ne déedéet dem aljanna ak safara nag nekkut ci loxo ku ma yónni keneen nag min baabi axra mu ne laysa laka ñeelul la min al amri ci mbiram moom moomu shay'un tus nag pour nga toog nag naan xaaj nañ la nga naan ñii nu ñuy texeetee loolu nag newut ci sa loxo aw yatubu alayhim wala yàlla di leen nangul tub xam nga bu lol amuton kon khalid ibn Walid bu tuubee it yefer lay don ndax danaka la la jullit ñu ñak mo len ko tek kon wax shi bu tuubee du bax yonent bi nga xam ak nit dong la nekkut yàlla wax shi bam mu itam nek ci diine ji yonent def ne ko dal bul dëkk Madina munuma la munuma la xol ndax ni mi defon Hamzatu lola taxon na be Eh, bu fekkoon yàlla waxut ne yonent bi laysa lak min al amri kon nit rek la moom it day alak ñépp ñu dem safara waaye yàlla ne ko yore woo ko aw yatubu alayhim ñu nangul leen tuub gannaaw seen caay-caay gii aw yu addibuhum wala yàlla buggal leen ndax fa innahum ñoom daalimun way tooñ lañ loolu nag newut ci sa loxo walilaahi yàlla maa fi samawaat li nekk ci asamaan wa maa fi ardi li nekk ci suuf yaxfiru yàlla mooy baal li man yashaaw ñeel ku ko neex wa yu addib yàlla mooy ko neex kon kuy daw jëmal ci yàlla ndax wallaahu yàlla xafurun aji bale la yàlla raximun aji yërëm la mu ñëw ci yeneen bàyyi na ñaari xare yooyu mu ngi ñëwaat ci yeneen irshadaat yoo xam ne mu ngi jëm ci doomu aadama ni muy jëflante ak ay mbokkam ci alal ki nga xam ne moo koy defit bu mu topp rek li koy war a yokk du seet li ci dagan lu gën doy waar moo di ne boo nekkee jullit yàlla du la bàyyi nag sa alal nga cay def lu la neex du la bàyyi nga koy wutee nu la neex moo tax mu ne yaa ayyuha na amanu yéen gaa ñi gëm alquran laa taakulu bu leen lekk riba adaafan mu di alal juy dikk di fulande wu rek mu mudaafan mu di luñ fulande loo xam ne daganut laa ragal leen yàlla laalakum boo yéen tuflixoona ngeen ragal ngeen texe lu tax wattaqu ragal leen naara safara allati safara wi nga xam ne uiddat xaroof na ko lil kaafirina ñeel ñay weddi waatiu laa toppaleen yonent yàlla wa rasula te ngeen roy yonent bi laallakum boo yéen turxamuuna def yërëm leen wa saariu mu ne bu fekkee ne borom bi tabaraka wa daf ne toppaleen ma mooy ci li may digle toppaleen yonent bi mooy roy leen ko ci lim jëlee fa yàlla moo tax mu ne atiu llaha wa rasul laallakum turhamuun wa saariu na ngeen gaawit qiraatu xafsa am na waaw wa saariu warsha moo amul waaw saariu rek la ila magfiratin jëm ci njëggal min rabbikum mu bàyyee ko ci seen borom wa jannatin ak aljanna joo xam ne arduha yaatuwaayam ba samaawaatu ma ngi toll ni asmaan yëpp wal ardoog suuf uiddat xaroof ko lil na ñeel ñi ragal yàlla aljana noonu la toll moo tax ku ne mën ca am ay kër yonent bi nee na dafa am ku tardé woon xam naa boo demee ku sant jaw la boo demee da doon ndekki gaa ñëpp dem aljanna mu tarde ñëw ñu ne léegi day kër yi joxe nañ ko ñu ne yonent bi nag kooku nag lan mooy nekk mbiram nu muy dëkkee aljanna mu ne yàlla daf ko naan seetal buurub àddina boo mës a dégg këram palem nu mu tollu ñu jox la lu ñuy toll mu seet buur bu ko neex mu tudd ko ñu ne jox nañ la loola mu ne yàlla ah gi kër a kër te rafet mu ne tegal naa la ci fukk yi toll noonu tegal naa la ci fukk yi toll noonooti tegal naa la ci lu toll ni euh, limëb lu ñu fulande ci liñ la njëkkoon a jox ba léegi mu ne kooku tardi loolu la yem moo tax yàlla ne yaatu na arduha asamawaatu wal ardu uidda lil muttaqin wante ana ñan ñooy am kër googu mooy ñan alladina ñi nga xam ne yunfiquuna danañu dundale fi sarraai ci waxtu wu ñu oomalee ñu joxe ca wa darraai waxtu wu ñu néewalee ñu joxe ca neewal ga xam nga ki néewle te joxe la yàlla gën a yéem moom la gën a naw ci kii am tey joxe ndax kii imaana ko tax di joxe waaye du man-man saxaaba yi ne nañ bi aaya bi wàccee dafa daan am ci ñoon ñu bëgg a saraxe duñ am ñu taxani jaay ko ñëw saraxe ndax yonent bi wax na ko moo tax mu ne ñemam aljanna jooju mooy ñi nga xam ne yunfiquuna fi sarraai wa darra muy benn melokaan ñeneen ña mooy wal kaazimina ñay nëbb sa mer ñi nga xam ne suñ meree ne tekk duñ wax luñ naan cam te duñ ko def wala aafina te gannaaw bu ñu meree kañ mere dañuy baal aninaasi ci nit ñooñu ndax wallahu yàlla kat yuhibbu dana fay al muhsinin ñi nga xamne ñoy rafetal gënaaw bo xamne mer nañ ali ibn husayn radiyallahu an moom mo la mu ñu tuddé zainul abidin dañ ko ali ibn husayn zainul abidin dafa amoon benn jaamam bu jigen benn jébéram muy jàpp koku yaral ko satala bi diko sotil xamna xalel la mu geesoo sàggan rek ba affaire bi daanu ci kawam satala si daanu ci kawam gémmiñ gi dagg tànk bi muy nàcc ali dal di téen xale bi xale bi ne wal aafina an innas yàllaa ngi dig aljanna ñay baal nit ña mu ne ko afawtu ank mu ne yàllaa ngi wax wal kaasimin al xays ñiy nëbba mer mu ne ko kaasamtu xays yi mu ne ko wallaahu yuhibbul muhsinin yàlla bëgg na ñu rafetal mu ne ko goreel naa la loolu mooy koo xam ne alquran dugg na la waxu yàlla ji dugg na la nga ko ak nga xam ne ci melokanu ñi dëkk janna ji bobu ben bobu melokan mom yombut yunfiquna fi sarai wa darai ben la wal kaasimin al ghaysa ben la wala afina an nas ben la wala al muhsinin ihsan ben la beneen bi mooy wala zina ak ñi nga xam ne it isa faalo bu ñu defee faaxishatan aw njombe bu ñu defee aw ñaawteef moo xam sariqa la moo xam zina la moo xam nuñ ko defee daal lu baaxut la aw zalamu anfusahum walla ñu tooñ seen bopp ci def lu jaaduwut bu ñu fa jógee rek zakarullah ñu fàttaliku yàlla wastaxfaroo ñu tuub dal di balu li zuno bi mu seen i bakkaar ñooñu it ñooy dëkkee aljanna jooju buur ne wa man yaxfir mu mel ni def ne ko ah ñooñu ku leen baal bakkaar mu ne wa man yaxfir ana kan mooy baal dunuba ay bakkaar illallahu lu mooy yàlla dafa am walam yusurroo fekk nag gannaaw bu ñu tuubee duut ci ëllëg sañu defaat ko walam yusurroo nuuruñu nag ala ma faaloo ca lañ defoon ba di ko tuub uhum te ñoom yaalamoo nañu xam ne baaxu ulaayika ñii ma tudd fii day ñoomam aljanna jooju nga xam ne arduha asamawaatu wal ard yàlla ne ulaayika ñooñ jazaahum seen pay kon magfiratun mooy njëggal min rabbihim ñaari mbir la kii dafa am magfira door a am aljanna mooy ñi nga xam ne ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru ñenn ña faahisha jaaruñ ca waaye anfaqu fi sarra'i wa darra wala wal min al moo tax mu indi ko ñaar ne jazaahu magfira min rabbi ñenn ñi nag wa jannaat tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha wa nicma baax na daal ajrul amilin yolab ñi liggéey moo xam ñii la wala ñële la bay na ñooy mu ñëw ci li nga xam ne mooy euh, sunu si yàlla ci bindeef yi ana nan la yàlla tàmm doxalee loolu la bëgg wax ak it euh, mbir mi loo ci mën a dégg nag ñi ragal yàlla rek ñooy mujjee mbir ma loola du tekki rek àddina bu ñu demee ba taxaw ci kanam yàlla mbir ma xéewal ba ñi ragal yàlla rek koy mujjee nag te itam nag doomu aadama booy dund ci àddina nga am ay nattu di jullit ñu naan la muñal jarutoon sax ñu la koy wax ndax yéefar sax yàlla da koy nattu métit yi dee geeg ñàkk geeg feebar gi yaa ñépp ko bokk kon nag su fekkee ne euh, dem ngeen xare badar ngeen duma yéefar ya ñu dem xareb Uhud ñu duma leen mbir mi noonu la xeex kay tey dangay ngay gañe ñu gañe la yàlla ne ah, xat xalat wey na min qablihikum li leen jiitu su ne sunanun ay sunna ak yoon am na ay aada ki baax yu ñu leen nettali ne amoon na bu yàgg loolu wey na man ngeen ko jàng ci taarix ngeen xam ko ku ci jànguti di tukki fasiroo dox leen fi ardi ci suuf fanzuroo ngeen seet da ngeen gis kay fa kana nak la nekké aqibatul mukaddibin mu jëg ñi weddi ndax yéen ngi dëkk fi fi mak bu ngeen tukkee dem sham qawm mu aad ak xaw mu saalax ak samuud ak xaw mu noox ak yëpp soriwuñ leen kon ku ci tukki dana gis jeexit ya kon siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mukaddibin yàlla ne haza li may wax de bayanun ak leral rek la dina naa si ñeel nit ñi uhudan jubla wa mawizatun war la lil muttaqin ñeel ñi ragal yàlla kon nag yéen julit wala tahinoo bu leen doyadi wala taxsanoo bu leen tiit ndax wa antum yéen kat al aalawna yéen a di way gën a kawe chartab in kuntum dem nekk ngeen muminin di way gëm yàlla in yamsaskum ndem laal na leen xarxun ay jam-jam ca xareb uxud xam leen ne faqad mas laaloon na alqawmu yéefar ya xarxun ay jam-jam misluhoo yu mel ni yi ci xareb badar tey dàq gi leen dàq ci Uhud wa tilka ayaamu fan yooyu ci xeex nu daawilaa dañ koy wëndeel tey nga dàq ëllëg ñu dàq la bay na naa si diggante nit ñi wala yaalam allahu ak it dañu yàlla dafa bëgg a xàmmi ci xeex yooyu lésina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ dëgg ak ñi weddi waaye taxis yàlla bëgg na jàpp ci yéen min kum shuhada xanaa bu ngeen jiyaare war na am ñu shahid yàlla fay leen xéwal gu màgg googu yowmal qiyaam wallaahu yàlla nag laa yuxibu du fay abalimi na ñu tooñ benn bi mooy lu tax jaar di am ñu leen di dàq wala yu ma xesalaa yàlla dafa bëgg a xàmmee alladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wayam xaq bëgg naa gotti it alkaafiriin na yéefér ya léegi nag xareb Uhud am nañu ko teewe woon ci baadu saxaaba yàlla euh, di ci yedd lan lañ defoon ndax yonent bi alayhi salaatu ci xareb uxud dañu dem ba yàgg rek ba iblis naawe ba tiim leen ne inna muhammadan qad qutil rangu jullit ñi dafa dal di daar ñëpp rek dal di daw yàlla nag ne ah foog ma yedd leen ndax yéen ba ngeen duggee ci diine ji alquran di wàcc man yàlla jàngal naa leen ci biir alquran ne yonent bii nit la bés dana ñëw du fi nekk léegi nag ngeen bëgg bu dee rek dina jeex moo tax mu ne am xasibtum ndax dangeen ngeen a jortu rek ne kon antat xulu dangeen ngeen di dugg aljana te aljanna yàlla ja ci gépp jàppandal doo am benn métit wala ma yaalamillahu te xamut yàlla alazina ñi nga xam ne jaadoo jihaar nañ min kum ci yéen wa yaalamate mu xam assaabirina ñi mën a muñ ci xare loolu ngeen yaakaar yéen ku ci nekk ngi naan ni ñu yéefar yi bugalee bu yàlla santoon xare kon nangama ki nangam jihaar وقد كنتم نكون جن تمنون دي مبت الموت دي من قبل بلاني لن ديغل من قبل أن تلقوه بلاني نداجك موم تينك فقد رأيتموه جسن جن ديغي وأنتم تين تنظرون ينجي جنوك موم تفك ديو جن تبي تخن بغداو وما محمد نكل محمد إلا رسول لما أبي ين تركلا خد خرج بيون من قبل لكو جيتو رسول ينتي تدين جان فدسان لكنك أفا إدمات نخبو ديرك أو قتل ولا ريفكو inqalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum seen gannaaw wa man yanqalib ku walbatiku dellu ci kéefér ala aqibayhi ca gannaawam falan yadurallahu du mën a lor yàlla ci dellu ci kéefér cheyon tus te yàllaa ngi observé wa sayajzillahu dana fa yàlla shakirin ñu koy sant waaye ñee dañ leen bëggal mu leen di yedd ba tey ne xare kenn waru ko ragal jihaar bu ko kenn ragal nekkal ci li neex yàlla ndax mënoo fexe ba saw fan benn nit yokku ci mën a fexe it ba benn bés wàññeeku ci kon nag defal li neex yàlla ak lim la sant rek ragal gi fu mu jóge Xaalid ibn Walid ba mu feebaree bay bëgg a faatu dafa wax ne toskare ñeel na ku ragal jam nañ ma téeméeri yoon ci xare masuma ceddee maa ngi nii dama nar a medd ci lal bi moo tax mu ne wa maakaana nekkut yellul li nafsin ci benn bakkan anta moota muy dee illaa bi isnillaahi lu mooy ci ndigalal yàlla amul benn bakkan boo xam ne mën na dee lu ma yàlla dogaloon ni fii lay dee te loolu may wax nag kitaaban téere la bu yàlla bindoon ci asal mu àjjaleen ñu digal ko ne bés sàngam la ci waxtu sàngam te du jaas ak ci béréb sàngam mënoo fexe ba jàdd loolu wa man yurit ku bëgg na ci yéen nag saaba duniya xam ne àddina rek ku yitteel nooti danañ ko jox mi naa tuuti ndax àddina mu ci yàgg wa man yurid ku bëgg na nag sawaabal axirati yoolu alaxira nootihi danañ ko jox minha ca ca yu lu bari wa sanajzi danañ fay nag achakirin ñu doon sant yàlla wa kaayin bari na min nabiyin ci yonent xaatala xeex na maa wa ànd ak moom ribbi yoon a mbooloo kattirin mu bari bari naa yonent yi jihaar ànd mbooloo te yonent yooyu yëf maa waxanoo doye woon ak seen nit ña li ma asaabahum li leen jot ci xeeti métit fi sabilillah wa ma daufu ma suñoo doyadi wa ma stakaanu ma suñoo toroxlul yéefar wallahu yàlla yuxibu dana fay assaabirina way muñ ya wa ma kaana nekkut qawlahum seen wax illa an qaalu ñoom fu ñu toll di xeex ñoom xeet yu yooyu dañu daan wax rek naan rabbana yàlla axfir yal na nga baal naa ñeel ñu dundobanaa suñuy bakkaar wa israfanaa ak suñu jéggi dayo fi amrinaa ci suñu mbir wa sabbit yal na nga saxal aqdamanaa suñuy dëggu wansur naa nga dimbali ñu alal qawmi ci nit ñi alkaafirin ñu di way weddi ba waxee loolu faatahumullahu jox leen yàlla sawaaba duniyaa yoolu àddina ba mat sëkk wa xusna sawaabil axirati ak la rafet ci yoolu alaxira wallahu yàlla yuhibbu dana faykat al muhsinina ñi nga xam ne ñoo rafetal seeni jëf bay na loolu waaye jógagul ci xareb Uhud xare bu Uhud ba mu tàngee bañ daaneel yonent bi rey Hamza toog Musab ibnu Umayr Hind ñëw dagg bakkan eh, bakkanab Hamzatu luqati bët yi dagg napp yi dagg tuñ yi xotti eh, xol bi génne rees bi yéy ko buusu ko yonent bi ne ko sa reesu bàyyi ngoog gaa ñu ne àddina tukki na lislaam jeex na ba nga xamee ne loolu xew na nag am na ndeysaan ay julit yu naan kan mooy ñëw ma yónni ko ci Abdullah ibn Ubay magu nafiq ya weddi won mu jëlal ma place ndax mom xaritu quraysh la mu jëlal ma place ci abu sufyan ndax fi yakuna sama borom ne ya yol li dina manu yéen gañi gam alquran in tutiu bu ngeen topé le jina ñi nga xamne kafaro weddi nañ day yaruddukum danañ dello leen ala aqabikum sen gannaaw fa tanqalibu ngeen walbatiku xaasirina di way perte ballu fi nek allahu yalla mawlahum moy aji mengo sen mbir waxuwa yàlla na xayru naasirin mooy ngeen ji koy dimbale na ngeen muñ te xam ne sa sanulqii danañu sànni fi qulubi lazina ci xol yi ñi nga xam ne kafaru weddi nañ ruux ba ay ragal bi ma ashraku ngir li ñu bokkaale billaay ci yàlla maa loo xam ne la muy nazil wàcceewut bi ci moom sultaanan wenn lay umaawam seen tapp waay naaru mooy safara wa bi sa bon na mas ba zalimin sax waay ñi nga xam ne ñooy nekk di way tooy jullit ña nag li leen dal dal ci metti na yonent bi alayhi salaatu ba mu ñibbisee ba Medina nag ñu def nag seen réunion critique di seet li yàqu ña dee dee nañu ñuñ jam jamal nañ jam nañ leen ah foofa nag am na ay jullit yu ñëw nekk ko bi ñun jaaxle nanu li nu li nu dal num nu dalee te nun noo ànd ak yàlla ànd ak yàlla yónni lu tax li dal nu ñu ngay commencé sikk daal seen mbir yàlla nag dal di tontul yonent bi ne da ngeen a seetluwut xare badar la leen la la la daloon yéefar ya fu mu leen dale xanaa ngeen a yaakaar nag ne bis bu nekk rek yéenay duma te itam li tax ñu duma leen ci yéen la ndax yee seen seen imaan moo desoon te yonent bi nee na woon te ngeen bëggoon alal ak àddina yonent bi nee na woon yéen ñi ci seen suñ gannaaw bu leen ñëw ñu tàmbalee dàq yéefar yi rek ngeen mbir ma sotti na ñu ngay séddoo ngeen bàyyi ca gannaaw gaa yi jóge leen gannaaw nag gaaw leen ak ndoom moo tax alquran ne wala qad sadaqakum dëggal na leen laahu yàlla waadahu dëlam de li mu def na ko nee na woon su ngeen muñee daal kenn nit ku nekk mën naa xeex ak ñaari yéefér dafa njëkkoon wax ci leen fal ne kenn ku ne dina xeex ak fukki yéefér ne am na ci yéen imaan mu ne kenn ku nekkoon ñaar wala qad sadaqakum dëggal na leen laahu yàlla waadahu ngeen a fàtte istaxusunahum ba ngeen leen di rey ci xareb badar bi nii ci ndigal ndigalal yàlla fii nag dangeen a dem xata ida fashiltum ba ngeen am échec wa tanazatum ngeen xëccoo fil amri ci ndigal li xare bu xasee am na kenn rek kay digal ñi di ci topp yonent bi ne bu leen jóg fii am ku naan nañ dem nangam xew na wa tanazatum fil amri mépp mbir mu ñuy song bu direction yi bëree ak ndigal yi rek échec dal di ñëw wa asaytum ngeen mooy min baadi ma araakum gannaaw boon bañ wan leen maa tuxibboon li ngeen doon bëgg mooy alal ngeen seen rek dal dina mbir mi jeex min kum nekk na ci yéen dëgg nag man yuridu ku bëgg dunyaa dina dong wa min kum nekk na ci yéen it man yuridu ku bëgg na alaaxira waaye su ma sarafakum topp soppi leen anhum ca ñoom li yëpp yabtaliyakum ngir mu nattu leen ba tax ngeen ànd ak ñoom yàlla ne loolu yépp nag li ci gën a gàtt mooy wala qad afa baal na yàlla kum ci yéen laahu yàlla ci lool ndax wallahu zu fadlin borom ngeen la alal alamina ci borom bindee fi waaye daw ngeen istusiduuna ba ngeen di daw ba ngeen di daw di yéeg wala taluwoona te du ngeen geesoo ala ci kenn wa rasulu te yonent bi yadcuukum ma ngi woo leen fi ci seen gannaaw fa asaabakum mu fay leen xamman jàqare bi xammin ci jàqare li kay laa taxsanoo ngir bu leen jàq nag yàlla dafa bañ ngeen tiit ala ma faatakum ci li leen xas faat ñu xas deeg la ngeen ñàkk fàtt leen wala ma asaabakum bu leen tiit ci li leen jot ndax wallahu yàlla xabirun ku dañ kumpa la bi ma taamaloon ci la da ngeen def ko su ma anzala topp wàccee yàlla aleykum ci yéen min baadil xam mi gannaaw jàqire ja amanatan kóolute nu ay nelaw yaxsha di muuru kuré min ci yéen ca xareb badar wa taayifatan benn kuré ba qad ahamadum yittale anfusum seen bopp ngir tiit ndax ki ñeme bay law ñeme na waaye ki nga xam ne boppam rek ku yitteel tiit na wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnoona ña ngay jortu bi laay ceel xeeral xaq la dul dëgg lu mooy lan jortu ne yàlla dina bay yonentam ak diineem bañ di ko toroxal loolu lañ jortu kon nag yazunnoona bi laay xeeral xaq zan al jahiliyati loolu mooy njortu ñi ñu réer ñenn ña dem ba naan kan mooy ñëw nu yónni ko ca diw yaquluna ñu nga naan hal lana min al amri shay'un mu ñun ndax dëgg gi moom amati nañ ci dara ma ndax ñun gañe xare moom amati nañ ci dara hal min al amri shay ndax ñeal nañu dara ci mbir mi kul waxal ne innal amra naka mbir muy gañeeg ñu dàq la kullahu lépp li lay ñeel na yàlla yàlla ne booba nag yax na ñu nga nëbb fi siim ci seen bopp mala yib doon luñ feeñalut lakk ñeel bu fekkoon ne téere bi ak nit ko bind li kenn du ko wax sa bopp di ko wax say sahaba ak ñaan ak yow waaye yàlla koy wax yaquluuna ña nga naan law kaana donte ñeeloon nañu lanaa ñeel ñu am amri ci mbiram gañe ak yonent ak dëgg cheyun dara day maa qutil naa kon reyee suñu awu naa fii xul tontul ne gis nga dee mbir mi ak dëgg gi mu ngi ci yéen waaye loolu tere dee law kuntum su ngeen nekkoon fii bu buyootikum ci seen néeg ya tëdd fa la barasa génn la jëne ñi nga xam ne kutiba bindeef na alayhim ci ñoom alqatlu ñu war leen rey ila madajiim seen tëdduwaay ku tëddoon ci sa néegit bu dee jotee dee nga fekk la fa wala bu ñu diwa rey danga nga fekk sax diw moomu mu rey la nee nañu ulamaaw séré nee nañu jamonoy Suleymaan dafa mel ni nit bu daan dee malaaka day ñëw ne ko dañ maa yebal ma jël si sa rooxu benn waaye nag gis lu mu ragal ñëw ne Suleymaan waxal ngelaw yi nañ ma yóbbu ndax gis naa ay malaaka di ma tiital ragal naa dañ may rey si dama ngelaw yi dewee ndax bu buñ delsee dañ ma fekk mu ne ngelaw yi dal di yenu waaja waaja dema dema dema dema dem ba fa mu soxla woon ñu koy cëppil mu ne bañ ne ko cëpp rek fekk malaaka maa ngi jékki di ko xaar ne mu daal di ko ree mu ne ko looy ree malaaka mi ne ko man yàlla nee naa la rey te fokk naa la reyee fii ma ñëw fekk la fu sori ma ne ah naa topp ndigalal yàlla rek dem fi ñu ma waxoon ma yëg si rek nga yëg si kii dinaa ree kon ndekee fu ngeen mënoon a nekkit bu dégg ñëwee fekk leen law kuntu fii buyootikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madaajiihim wala yabtaliya allahu ak na fi sudurikum li nekk seen seen dënn yi mooy xol yi fokk yàlla seet ko ndax dëggu ngeen wala yu ma xisa fokk mu xàmmee leeral maa fi qulubikum li nekk ci seen xol yi wallahu yàlla alimun aji xam la bi daatu suduri li nekk ci dënn yi inna alladina naka ña nga xam ne te wallaw daw nañu dëddu nañ joxe nañ gannaaw minkum ci yéen yow mal taqa bés ba daja aljamaani ñaari mboolo ya ñooñu la dawoon day innama stazallahum naka tarqiis loo na seen ab dëggu kan cheytaan tarxiis nañ ba bay yoonu dëgg bi baadi ma kasab waaye nag duwut seytaane kese lenn ci liñ faggu ci ay bàkkaar moo leen yóbbu ci ñu mën a ànd ak seytaane loolu bi baadi ma kasabu gis nga bi baadi ma kasabu duwul ne sax liñ faggu yépp lenn ci seeni bon bon rekk leen ko yóbboo duwul sax yépp yi ci des yàlla bana ko walaqad afa allahu baal na yàlla ankum ci yen julit ñi erreur yi ngeen def ci xareb uxut inna laa ndax yàlla moom xafurun aji bale la mu yàlla xalimun aj lewet la mu ñëw nag ci ab julit ni mu war a joxe boppam def li ñu naan tadxiya mooy joxe sa bopp ngir yàlla bu fekkee julit ñaa ngi yéefari ñaa ngi ñu ngi jihaar ab julit da caa war a joxe boppam te itam yéefar yooyu nga xam ne dañ naan bu ñu demee jihaar dee ci ñu naan ah dafa sob su toogoon fii du dee alquran ne leen boo toogoon it dee ñëw ndax yéen ñi demut it dangeen ngeen dee <laughs> mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran laa takunu waaye bu leen nekk ka ladina naka ñi nga xam ne rek kafaru weddi nañ wa qaalu ñu wax li ixwaanim ñeel seen i bokk isa darabu bu ñu tukkee fi laardi ci suuf aw kaana wala ñu nekk xuusan di way jihaar bu ñu fa desee mu ne dañoo sob ndax law kaano buñ nekkoon day indi naa fi ñun maamaatoo duñu dee umaa qutiloo reyeefu leen léegi àlallahu dana def yàlla zalika loolu xasratan muy rëccu rek fii xuloo bim mu seen xol yi wallaahu ndax yàlla ci boppam yox yi mooy dundal ku ko neex ba bu dégg ñëwee mu tëb ko ba waxtu wa jot wa yumitu mooy rey bu jotee wallaahu yàlla moomu basarun ku xam la bi ma taamaloon ci la dañ def ko bur ne wala yéen qutiltum ndem reyef na leen yéen ñi gëm yàlla fi sabilaay ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen dee rek dee goo xam ne dugu dañ leen a rey waaye comme yéen a ci li neex yàlla la maxfiratun njëggal ba ngeen di am mi ne lay bàyyeeku ci yàlla wa rahmatun ak yërmande xayrun moo gën fuuf mimma ci li nga xam ne yejmaun danañu toog fii di laqatu jihaar ak dee di ko boole lee moo ko gën te it nag wala it muttum bu ngeen dee deewoon dee naturel aw xutiltum wala reyef leen ci yoonu yàlla boo it kenn du raw ki dee ci li neex yàlla li neexut yàlla yéen ñépp la tuxsharuun def na fanga leen lay laay ngeen jëm ci yàlla ku ne ñu fay ko li mu doon def léegi nag ma ngi dellu ci yonent bi ne nag yen sahaba yi leen dal qareb uhud ci yen la joge ndax yena a wuuteeg ndigalal yonent bi yena baña top liñ leen reddelon mu ñew nak di wone ne yonent bi nak mom day mom njiit la waye nak ku man njiit la ku mat ku man njiit la ndax xol ba xatul jikko ja rafetna te du mer te fay bale te bala def sok yeen kon man na njit kon yeen ñi yena matutun way tëppe motax ñu dakk leen motax bu ne fa bima rahmatin sabab si yërmande min lay baye ko ci yàlla motax yonent bi linta nga noy lahum ci ñom xam nga ne walaw kunta boo nekkoon faddan di aji ñaaw jikko ghaliz al qalb di aji qis jib qol lan faddoo fekkoon na mboolo ma tasaaroo min hawlika fiñ la wër kenn du kenn du la wër kon nak way faafu balanum balal anum ci ñom wastaghfir lahum nga ñaanal leen njëggal wa shaawirhum ngay diisoo ñoom fi amri ci mbir fa iza azamta bu mbiram yàlla ñëwee nag ba nga dogu ca ah fa tawakkal na nga sukkandiku kon ala lay ci yàlla bul dellu gannaaw ndax inna laa yàlla yuhibbu dana fay al mutawakkilin ñu sukkandiku ci moom